solos daje bi tey mooy ginnaaw bi ñu nekkee ci tournée bi nga xam ne mooy partager programme Place et nga xam ne dañ ko nguuru Sénégal ak yeneen réew dañu ñëw indi ko pour jàppale ñi nga xam ne ñooy yëngu ci à la base ci gox goxaat euh, def nañu région yu bëri tey nag lañu ñu tàmbalee région Ndakaaru Ndakaaru nag yaatu na yaatuwaay boo xam ne defuñu ko sous forme de région mais dañ ko def sous forme de département tey la ñu njëkkee département Guédiawaay te liñ fi nemmeeku mooy am na forte concentration du système financier décentralisé institutions et de microfinance yi tabaxkàlla am nañ fi bu baax a baax acteurs yi aussi amna na ndax ñëw nañu en masse euh, système ñi nga xam ñoo aussi walu institution de microfinance yi ñëw nañ donc séq nañu waxtaan te li nga xam rafetlu nañ ko mooy waxtaan nañ ci wàllu taux d'intérêt yi ndax nekk na gàllankoor Euh, nit ñi ñu ngi koy métitlu mais kenn ku ne ci parti wax na lan moo war a doon taxawaayam pour euh, loolu nga xam ne nekk na luy gàllankoor ñu seet nuñ koy saafaraawe APSDF bi wax na taxawaayam ministère bi wax na taxawaayam acteurs yi seen bopp wax nañ li ñuy xaar ci état bi mais beneen mbir bi aussi wax nañu acteurs yi ne bëgg nañu wàllu financement changer xar kanam ndax bëggatuñu des rek financement na rek naa dem jël dañu financement bi nga xam ne koy jagleel acteurs effectivement lu ñuy liggéey la social à travers un regroupement solidaire loolu économie sociale solidaire euh, jàpp nañ ne war na euh, jël région Dakar ndax moo concentration dinañ dem ci département mais d'ores et déjà jagleel nañ institution yi fi nek ñaar témèr ak juroom fukki millions yo xamné ci walu expérimentation loolu dinañ ko mëna def wax nañu aussi acteurs yi à la base né accompagnement technique parce que daf ci am solo li ñu acteurs yi gëna wax tay moy même ba laata ngay bind projet sax dang ci perte alal ju bari ndax da ngay ñëw def def def ba paré do xam sax fu projet bi jaar yoy yëpp aussi jox nañ leen information yi war ndax nit ki aussi balaa nga koy dimbale da ngay xool ndax am na information ba pare yooyu yëpp nag li ñu bëgg expérimenter indi information bi wax leen anam yi ñuy jaar xool li manqué pour taxawaay bi mën a jur koom buy liggéey jóge ci financement te am nañ ko fi donc ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax. ci wàllum taux yi dinañ ci seq waxtaan ndax APSFD ak acteurs yi mais ministère des finances ak BCEAO surtout. ndax wàllu taux yi lu yoon tënk la ba pare mais comme niñ ko defee tey waxtaan ak xool également ci yeneen réew yi nga xam ne seen too gën na wàcc loolu lépp dañ koy daal di boole am na luñ ci luñ fi junj tey mais fii ak 2020 bi ñu ciy dugg dinañu def daje yoo xam ne ci loolu rek la ñuy wax ci wàllum taux bi ministère bi ban taxawaay la ci war a am état bi ban taxawaay la ci war a am ba nga xam ne ñiy joxe également dinañ mën a joxe lu gën a méngoo ak askan bi ndax kenn mënul naataable ne wàllu institution de microfinance am nañu pàcc bu am solo bu ñuy indi ci koomu réew ndax kuy dugal lu tolloog euh, ñett euh, juróom 35 euh, milliards par mois ci koomu réew kooku am na taxawaay ci réew nu ñuy fexe ba taxawaay boobu gën a yokk mais mu gën a méngoo ak jamono jii di dox aussi loolu dinañ ko def waxtaan yu xóot yoo xam ne am na luñ fi junj tey mais dinañ ko mottali ci yeneen i bërëb euh, tënk ko ci yoon yoo xam ne muy loi wala yeneen xeeti text yoo xam ne dina ko mën a encadrer ba euh, plan Sénégal émergent bi ak président Macky Sall lim ciy wut ci lu yéwénal askan bi ak gën a mën a sàmm seeni dundin ñu mën ko réaliser incha allah.